mais mais en fait mën nañoo changé beneen. waaw taxawu leer la. waaw bala maa taxaw bala ngaa taxawu leer la. xam nga jënd mu di yàq maanaam misaal kii nii nga yóbbu daal mm-hmm. mu yëgg maanaam nangu di jàng ba gi buñ ko dóoree fan man a toog fukki fan ak juróom-ñett ba amoo weer loo gis bu ñëwee fan nga jëm ko mu toog mm. mais en fait amuñu benn méthode bu ñu mën a jaar ku dul jéng ndax boo xoolee daa xaw a ndróog dafa xaw a vulgaire quoi dafa xaw a ndróog affaire jaam parce que colléage xam nga ñi nga xam ne dañ leen daan tënk di leen jaay affaire mooy loolu léegi léegi bu ñu nit. day xaw a xam nga lu baax bokkuñ de. li ñu ko li ñu ko ko jéng ngir ngir mu xam yàlla. xam adduna xam alaxira am ko ci tamit teg ci moom bokku ci xam nga kii buñ jaay par nañ ci woon waaye kii li bu ci balee su noppee dana doy ci lan doon def dañ jëng xam nga doo ko doy benn dina sant tamit ki ko jëng ñaareel ba sëriñ daara bi taxoon ñu jëng ak jëmmi ay waajuram ñu ko bàyyi woon si daara ji muy ñaar ñëpp leen boole foofu léegi comme sama genre gi nga xam ñun loolu yaakaar naa ne jéng ab jaam la comme ça ndax rafetul tamit doomu aadama ñu takkal la ay seen et mooy lool loolu rafetul ci gis léegi pour yow pour pour yow daara yi nan wa nan war a utiliser daara jéng mën naa ñàkk daara ndax tollatuñ jamono joo xam jamono jaam et puis jamono joo xam ne dañoo war a di jël xam nga am na loo xam ne rafetul ci doomu aadama ñu tënk ko comme ça boo nekk ci am xel di xalaat li ci kanam ak li ci ginnaaw ba pare tamit di xalaat ne di am na ci war a ah benn yaa ngi naan gis-gis ci maanaam ñu jéng nit maanaam tey nga fekk mu jéng nga ne gis-gis rafetul maanaam daanaka rafetul bu dee ci sama waaw bu dee ah, ci sama xel daanaka rafetul waaye maanaam daal bu ñàkkul teggit ba xam ne jëmmi. Ah, sëriñ dara bi të bi tëjlu bi kii yaay bi jëngalu gone gi bu ñàkk lu ko def mhm. léegi nag léegi daa xam ne lii njëriñam la mhm. njëriñam tey njëriñam ëllëg léegi nag léegi nag ah, dara jóoreem mhm. fekk maanaam daal li ma ko waxee daal fekk ñu dëng fekk ñu jub ah léegi ñu dëng am na am na lu ñuy def ba bëgg lu ñuy jub ñu dëggal bopp am na lu ñuy ba ba seen kii bi wala li nekkoon dëgg la dina ko si moom dañ mm-hmm. léegi nag jéeg loolu nag daa du si am yoo xam ne jéem ko mën a dindi mm-hmm. soo jéegee léegi yéen waa nito jël nga xam ne yow buñ la bàyyee boo toogee li nga li ñu am di nga ko am te doo ci sonn moom kenn du la jéem mm-hmm. dina jéem a toog waaw ah, ah. ah. léegi loolu nag wax xam nga sama genre gi nga xam ne man ñu ngi ko xamee ni xamee wu ma ko noonu dama yaakaar naa ne kun jëng rek jaam nga et léegi yow lan ngay wax ñi nga xam ni xamuñu lan mooy jëng tey après ñuy bëgg a interpréter ci jëng di ci wax di ci wax ci jëng yaa ngi comprendre léegi lan ngay wax ci ñooñu. <coughs> dañuy wax si seen xel dafa gàtt. Mhm. te dañuy njëriñ ci daal ba xam li ci daal. Uh-huh. ba pare tamit euh, euh, am nañu ko ko xam. Mhm. maanaam ni ma la koy misaale hmm. euh, dane nit dafay liggéey ab liggéeyam ba man ko hmm. mu métti lool keneen ñëw di ko liggéeyaat yow mi xam liggéey bi métti di liggéey bi nga gis kooku muy daj li ci kii bi euh, li ci li métti ci liggéey bi hmm. léegi kenn nga xam ne xamu gi dara xam nga kii bu ñëw da koy bàyyi noonu rek naan ko yaa ñàkk jëm ak nangam nangam ay yow bu yénoo bu ñëwee da nga koy sant naan ko kii góorgóorlu lépp dina baax xam nga yow li nga xam moom xam jég jég jég moom noonu kon daal kon daal jéng daal ku nekkul ci daara waroo mun a euh, munoo xam lan mooy jéng te it fii bu ba nga weesu ci munoo xam njariñu dee jéng te li ma déggee sa wax mooy comme ça daara ji duñ tëb tëb rek jéng nit nit ki li tax ñu lay jéng yaa koy def. Ah. xam nga nit mm-hmm. fekk xam ngi muy toog di jàng. daw wala nga fekk kii tufaam moom di jàng di daw nga ànd ko yéeg xam nga loolu xeesul xam nga loolu xeesul léegi bala nga bala nga mën a benn te fi baa nga am loo def loo xam ne jéng dong boole ci wala jëlee daa am loo xam ne yar moo koy dindi am loo xam ne jéng koy dindi am loo xam ne wax ko dindi. cey <coughs> ah, daal boo ko gisee mooy xañ nit ki ay liberté yoo xam ne mm-hmm. moom du ko mën a am te dina ñee moroomam bu am ko mu ni léegi bu nekkam kii jéemuñu ko kon naa jéem a def li muy def euh, comme daal toog gi muy toog mm-hmm. ba am li muy am maanaam mm-hmm. ah, boo xooloon daal jàng jàng tubaay mi ngi jéng li ci bari doo ko am doo mën a yoraay doo mën a doxe say soxla am liberté xaalis tamit la langa di ko di ko am mm-hmm. liberté tamit am mm-hmm. te xam nga ne yow suñu la bàyyiwoon tey jii boo defee noonu ah, woo góor rek nga am mm-hmm. ku la ku la sant du la ŋaañ léegi boo yow boo amee xel am jom la de di nga jom toog cey Serigne Touba yow wax ji ni nga ci jàng mooy ñun xamul daara mosuñoo jaar ci xam lan mooy daara danoo war a ci daara ah Bamba Touba. ba dégg ngeen. suba sëriñ naa si yéen. man kay kii xamaguñ ko. xamaguñ